yooyu ne mu nekk président d'honneur genre yooyu gis nga ni gars yi ñoo ngi doon kaas léegi problème bu am parti démocratique sénégalais mooy Karim Wade actuellement moom moo yor les rênes du parti yaa ngi dégg léegi nag nu mu yoree les rênes du parti am na ñoo xam ne du leen neex parce que am na ñoo xam ne nii quand tu parles Doudou Wade les am na ay nit ñoo xam ne ay Tafsir Thioye ñoo xam ne nii amaana ba ñuy militer Parti démocratique Sénégalais rek gale Karim Wade xale bu ndaw la wala juddoogul uh-huh. léegi nag ñoom peut-être loolu moom moo leen euh, metti par rapport à beaucoup de choses gis nañ investiture yi lu indi problème bi mooy tey ji def nañ ay investiture te Parti démocratique sénégalais du moom kese uh-huh. euh, moom ak euh, waa APR la donc loolu bu amee nag euh, mu doon ñaari parti yu booloo kon ça veut dire que tey jii bu fekkoon ni par exemple ñu ne ndakaar dañu waroon investir euh, sept Euh, député yu war a jóge part démocratique sénégalais sept candidats à la candidature peut-être parti démocratique sénégalais trois la si am wala quatre mhm. yeneen nii waa APR ñoo koy moom wala ñeneen yi nga xam ne ñooñu la ñu sekkal coalition bi loolu moom moo indi problème yi parce que ñu bëri yaakaaroon nañ ni en fait dinañ bokk euh, figurer en bonne place si euh, liste investiture yi mhm. mais quand même ils se sont rendu compte que loolu amul moo tax ñu bëri frustré man am na benn kiiw parti démocratique sénégalais sax bu ma euh, envoyé temps yi message di ma wax loolu mais peut-être moom mënul wax ci kaw parce que am na lu muy bañ mais quand euh, boo gisee frustration yi loolu la un premièrement Karim ba mu ñëwee lan la def mooy depuis quelque temps moo ngi rajeunir parti bi moo ngi rajeunir parti bi yenn gox yee gox goxaan yooyu te loolu c'est normal ah. tey ji AFP mais dafa mais euh, peut-être mën na ànd ak waxtaan mais paa yi tamit euh, paa yi nañ xam ni ñoom amuñu yenn représentativité yi. te ay mag lañu. mag euh, en fait Pastef moo changé. moo changé donne bi. Mhm. dans l'arène politique. gis nga taxaw Sénégal Barthélemy euh, Khalifa Sall xaw na tegoo na le ah. bàyyi Barth parce que xam na ni Barth moo mën a wax ak Sonko parce que xalifa bu taxawee naan dañuy jaay reewande ñëpp dañuy xam ne euh, lii c'est pas xalifa quoi loolu nekkul ci tempérament am dafa am loo xam ne le Dias moo ko mën mhm. léegi nag si yeneen parti tamit noonu lay demee mhm. PDS tey jii s'ils veulent s'imposer il faut que les jeune soient la mhm. léegi jeunes yooyu nag am na ay jeunes yu ci frustré ah ci par rapport ak investiture yi parce que investiture yi bu ñu demee ba yàgg diw ngeen bokk rek ça veut dire xam nga Pastef loolu la doon éviter moo tax mu ne day dem sous sa propre bannière parce que ay jeune am taxaw nañu xam na ni tey ji bu woon benn PDS ne ko tey ji maa ak dañuy bokk coalition kon da ngeen di ko séddoo te loolu mën na créer ay frustration léegi nag bon c'est ça en fait ce qui explique aujourd'hui les problèmes qu'il y a au niveau du parti démocratique sénégalais mais man jàppuma ni euh, gars yi dañuy falsifier signature Ablaye Wade. d'accord très bien Aminata moo ko jàngate crise am na nag wax dëgg yàlla. surtout mhm. au sein du parti PDS mu nekkoon benn parti boo xam ne euh, mhm. les libéro euh, yàgg nañu téye Sénégal instant bi booy xool seen parti bi. c'est totalement en ruine. parce que mhm. booy xool même UJTL tas na. instant bi à l'heure où nous seen secrétaire général dem na rallier Pastef. Mhm. Mame Diarra Fam dem na rallier Pastef. mais waa Pastef ginnaaw raay nee nañu. waree ak yi mooy Dadi ngay wax. waaw Franck Dadi dem na. waaw ah, gis nga moom a la suite des investitures parce mhm. qu'il était fâché mhm. moom ba mu gisee list bi déjà la woote woon conférence de presse mhm. moo nekkoon euh, mardi dernier ñu si dégg nañu alors man keroog ba mu doon wax si conférence bi rek laa xam ne kii benn tànkam dem na ba ba pare mais yaakaar naa seen principal problème nag moo nekk Karim Wade parce que Karim il n'est pas la mais quand même c'est euh, l'absent le plus présent au sein de de de PDS booy xool euh, yenn grande prise de décision yëpp moom moo koy jël Waré saar loolu la daan euh, bañ nekku fii ba pare te moo ci gën a sonal nit yi mm-hmm. li leen gën a rey nag mooy quand ils se sont alliés à Macky mm-hmm. yaakaar naa noonu démb yi bu ñu àndee tey rek seen pexe euh, moo moo jubul moo mm-hmm. tax ñu ñu ñu ñu bëgg a ànd c'est ça noonu démb c'est-à-dire mën nga nekk ci kër gi waa kër gi xam nga dañ ñu dëngoo mais si fii que sàcc ne cirib ci kër gi ñëpp ay juboo ba sàcc bi génn fa la réew mi toll réew mi dañoo dëngoo mais gis nañ ay bandi rax nañ ñu ñëpp war a takkoo pour dégager fi bandi yi loolu kese la ànd bi loolu da ko waral d'accord yow yaa jàpp ne ay ay ay bandi lañ mais euh, non waxuma kenn bandi la de damaa jox exemple rek <laughs> voilà d'accord mais mais en tout cas ce qui est certain que ni gaal gi moom dañ doon wax dañuy yëngal gaal gi xaw a joo gaal gi mais gaal gi fu mu toll nii ci disparaître la gën a toll comme yëngal gaal gi. d'accord merci na en euh, grande partie euh, jaxasoo na daal. ki ko sos sonn lool nekk daw ci ginnaaw pouvoir pendant quarante ans doog cee jot toog ci douze ans ñu yëkkati ko fii avec la manière vraiment mérité wul woon partie bi dem ba yegg si fii unité la mérité woon libéraux yëpp daal di daje la grande retrouvaille euh, de la famille libérale ñoom ñëpp ñu daje parce que moom danaan danaan am na lu bëri loo xamante ni ci wàllum démocratie moom président Abdoulaye Wade da ko daan xeex yu bëri yoo xamante ne Sénégal tey jii bu taxawee ba am na ñuy wax sax ni président Macky Sall am na ci yu bëri yoo xamante ne ay exemple lu président Abdoulaye Wade la gis na ni développement mënut a am sa infrastructure yu baax mu teg foofu tànkam yeggale yenn projet yi teg yeneen projet yoo xamante ne lépp ci wàllum infrastructure la jëm donc kooku parti mérité wul woon lii quand même Abdou Nguer waaw effectivement parti bi bu ñu sañoon ñëpp dañuy ànd defaru jàppalante mais nag euh, parti noonu lay doxe des fois da nga gis mu neex suba mu naqari ñenn ñi ñoo génn mm-hmm. filistere wu euh, heure bi daal parti démocrate sénégalais xeer yi dama koy suspendre parce que keroog Gallo Tall dafa taseeg man ne ma félicité ma ba pare ne ma nag xeer yi gis naa ko ma ne ko non dama bëggoon tànk bi tàllali waaw ma ko parce que waa koñ bee moom permettre ma kenn nga ànd ak ñoom ak lu ma la rus rus te parti bi sama maam da cee bokk nekkoon ci responsable fële ca sagata ñi xam kajoor daan ànd ak ñoom màggan ngoone gay kebe maire paa yooyu sama maam bokkoon nañ bu ñu daan bu ñu daan voté ji ñoom waa Abdou Diouf day jël waa Abdou Diouf dañuy jël oto def ci seen waa kër ñi ko faral yàpp dem voté ji sama maam nag day jiital njabootam dox benn dëkk bu den doon ak ñoom dañuy dox voté ji dox ñëw maa ngi koy fàttali kon parti la boo xam ne euh, bokk na ci parti yi ma gën a bëgg waaw ndax euh, moo tax lii moom yéenewu ma leen ko tee nañu dajaloo waat rek àdduna amul solo ay pelant ak yooyu yëpp xaju ci Ablaye Wade mii naaxul <laughs> kenn tafalsue signature am Ablaye da bu doon am cent dix ans xel mi du dem may yàlla la ci am xel meeg bët yi Ablaye Wade ko wax de nee na moom sa xool lu xaraam moo tax balaa lu mu màgget màgget bëtam yii ak xelam mii du lëndëm xanaa ñoom yàggu ci dugal Baay Wàdd nee na musul xool lu araam moo tax bëtam yi ak xelam mii da koy dese Abdoulaye naa ko kii Abdoulaye Wàdd de yaakaar naa ne xelam mii mooy gën a gudd fan bakkanam bi loolu moom maa dara jotu ko lii yëpp Abdoulaye Wade la nañ bàyyi jaam nañ bàyyi seen yi nit mag yi ñu nekkee Karim deful dara de Abdoulaye Wade yëpp moom la neex di mu fi waree jàppale joma di mu fi waree jàppale jomaay gis nga ni jomaay daa ba këram Abdoulaye Wade wax xam nga Abdoulaye xel mi dem xel mi nan la fi mën a demee 6 mois xelu Abdoulaye dafay mën a demee noon moom kay moo gis na jàppale nañ ñii gis na ne ñii ñoo doxal réew parce que Abdoulaye xam na réew mi. il préfère que mu ànd ak ñeneen di wut majorité mën a contrôler réew mi. Euh, nuñ def waa PDS la ah. Mm. ñoom ah dañ leen non non waa Pastef ñu def PDS. élection ñoo ñoo ñoo mel ni lu leen rejeté quoi. ñoo mel ni bugguñu xam xam yow PDS dina nangu PDS. waa kay loolu la. en PDS PDS dafa teel wax ne man ouvert à toutes les coalitions. waaw léegi yow nga ñëw ne man sama parti laay demee. ku